maa ngi lay fay ba ban jàngat ngay def victoire waaw waaw bon euh, victoire bu mu mérité la. parce que liggéey na li tax mu mën a daan. parce que boo xoolee tey ñoom ñaar au drapeau la woon. ci biir euh, bëre bi. Zarko door ko tànk bi tër ñu ko moom. combat bu ah, bi dafa mën a rey ñoom ñaar a toll noonu. Ah, ah. waaw man erreur moom du ma ci ne sama yoon newu ci erreur waaw bëree na daanu na waaw erreur moom soo yoon newu ci. Ah, mais ku deful erreur doo daanu. ah waaw mais attends kon nag man xam nga loolu répétition la. ah si doole feeñ ci. doole feeñ ci parce que ñoom ñaan ñëpp ku ci ne am nga doole ju la boo mënee daan ah. looloo tax. waaw eh, Zarko utiliser dooleem foofu nag bi bi ñu tampaloo nag ah. foofu xam nga lu doon génn physique physique waaw ak état bi nga toll woon. boobu nag foofu nag ñoom ñaar loolu lañ doon jaayante loolu moo tax ñu tampaloo boobu tampaloo bu yàgg léegi nag la ci doon kii mooy fraîcheur boo yëgalee combat. mais est que Zarko ci wàllu bëre nit ñi sous-estimé wuñ ko woon. nit ñan. amateur yi. non man sama analyse. kay nag kon xamoo Zarko. bi muy wër ndomb Sa Thiès si bëre la ko ware attention Zarko bëri na ak Sa Thiès barke bëri na yu mag yi bëri guy gi xale bi moo ko doon dab si ak Siteu xale bee doon dab si tey xëy na euh, tey du chance am pour mu dab pour mu dab ko waaw grand contre petit bi xew xëy na moom tey mag mi mu bëggoon euh, euh, reclasser yàlla mooy ko ci ndam waa Kaaw waa loolu moom ay waxi waxi làmb la rek. waaw waxi làmb la rek. ah non non mais ay moromam ñoo fi nekk tamit. ñoom Moussa ñoom ñoom euh, Amaneex. Amaneex ñoom euh, nu mu tudd ci euh, Aliou uh-huh. ñoom ñëpp mais Zarko. mais ñor na kay. bu ñu bëggee ñoom ñor na. am na ñu ko bëgg am na xale yéen ñu ko bëgg aussi.